bisimila daleen ak jàmm ci chaîne bi ngeen taamul seen bopp daanaka yéenekaay yépp ci kàddu yu njëkk yi président Bassirou Diomaye Faye muy njëkk yëkkati kàddu en tant que président de la république jomaay ne fan yi ñu dëkmal danaa taxawal gouvernement bu njëkk gouvernement boo xam ne ay góor ak ki jigéen yu am valeur ñoo ca ne waaye it ñu réew mi ñor lool enquête it wax ci chantier président Bassirou Diomaye Faye kàddoo mi njëkk yim yëkkati démb yéene kaay ba na yëgle na ci ab gouvernement boo xam ne ay sénégalais yu ne ci réew mi ki bitim réew ñoo cay bokk réew mi yëpp it Bassirou Diomaye Faye bëgg na leen a jubale muy réconciliation nationale refondation des institutions maanaam bànkaas réew mi ñu tëggaat ko wooye falit njëgu dund gi Bassirou Diomaye Faye yéene kaay bi ne fësal na chantier prioritaire am li mu jàppe mbir yu jàmp jàpp yu ñu war a lijjanti yéenekaay bi ne bokk na ci ay waxtaan yu yaatu yoo xam ne dañu cay xayma waaye it sumbaat politique publique yi Basiru Jomaay Fay nag enquête ne delloo na njukkal lu mag Ousmane Sonko rafetlu itam ni nu tëggee élection yee kàddu yu président Macky Sall mi ne woon ci réew mi Vox Populi nara mu rafetlu mooy posture président Macky Sall taxawaayam ci élection yi am ci jàmm am ci dal waaye it doon élection yu mucc ayib waral Les Échos ne Jomaay ya ngay félicité Macky waaye jagleel na njukkal lu mucc ayib Ousmane sonkoo doog a fësal chantier yi mu mal ngir liggéey réew mi moom Basiru Jomaay Fay chantier yooye Les ko ne bokk na ca réconciliation nationale di jubboole réew mi yépp waaye itam woyefal njëgu dund gi Sénégal nag Bassirou Diomaye Faye dalal na xelu waa bitim réew ne réew muy jëflante ci anam gu mucc ayib lay wéy di doon waaye itam réew moo xam ni xaritu yeneen réew yi muy jëflanteel ñépp la Diomaye ne li fi xewoon dañu koy teg suñu ginnaaw muy crise pré-électorale ba sumb ay waxtaan yoo xam ne ñépp ciy bokk ndax li ñépp bokk faaw ñépp dugal ci seen loxo Amadou Ba yéenekaay bi ne nangu na defe tam félicité Bassirou Diomaye Faye Macky topp ca Le Quotidien ne Macky ak Amadou Ba yépp ñoo mujjee félicité Bassirou Diomaye fay nangu ne moom la nu fal ci bopp réew mi ba nuppi ñaanal ko ndam ci bopp réew mi ngir jàmmi askan wi askan woowa Basiru Jomaay Fay a soppi a indi nag mooy xeex di a taxaw fam dalalee xel dalal xelu partenaire technique financier yi waaye itam dalal xel ci gouvernance di yorin wi ak juboole askan wi bés bi ne Jomaay digg na yorin wu sell yorin wu ànd ak leeraange mu di transparence waaye itam xeex ger point actu loola la fësal ci xëtam gu njëkk Le Soleil it fësal ci xëtam gu njëkk kàddu yi Bassirou Diomaye Faye yëkkati ne je yëpp it yéene kaay baa ngi koy faram-fàccee l'info di fàccee chantier yi Bassirou Diomaye Faye fësal démb ba muy njëkk jël kàddu ci kanam askan woowa ko fal dimanche laas tuddee loola le serment du président Bassirou Diomaye Faye yéene kaay bi dellu si ca la mu digge yëpp muy juboole askan waaye itam liggéey réew mi te woyofal dundu gi Sud Quotidien it ca loola la xëy ni ki Walf Quotidien mi ko Idrissa Seck moom yéenekaay booba gis na ne jeexal nañu tàkk ci wàllu politique ndax lajj gi ñu lajj ci élection présidentielle bi nu génn élection booba libération ngay dikk ci duma yu yi Bassirou Diomaye Faye duma am moom Bassirou bay fàttali ne Ousmane Sonko moo ko tànn askan wi nangu ko mu doon njiitu mi gën doon xale ci taarixu Sénégal yéenekaay bi ne bu weesoo Amadou Ba mi ko félicité ki démb ñépp ñi doon xëccoog Bassirou Diomaye Faye nguur gi lu yee pour cent la am kon ñoom ñépp dañuy ñàkk seen caution yañ joxe woon ngir élection présidentielle bi journal bi ne li dox diggante Amadou Ba ak Bassirou Diomaye Faye ci ay poñ ci Ndakaaru Thiès Tivaouane Mbuur dafa bari ba jéggi dayoo Jurbel Bambey Mbàkke moom kenn waxaale wu ko yéenekaay bi tuddee loola razia boo xam ne bàyyiwul sax fa nga xam ne Benno Bokk Yaakaar moo fa amoon doole fépp ya mu yëkk ci en tant que président de dikk na ca nu mu gën a yaatoo réew mi quotidien moom gis Bassirou Diomaye Faye sol yére président taxaw gannaaw bi ko askan wu Sénégal tànneef googa Amadou Ba ak Macky mooma le réveil ne farandoo wi Amadou Ba yàq nañu ko lu mel ni xeme ci jël bi seen candidat amee ci élection présidentielle bi ndax jàpp nañu ne Macky mooma saboté campagne Amadou Ba tax mu lajj lajj gu metti gi ci kanam Bassirou Diomaye Faye le réveil noppi ci loola yeggeeñu ñu fal Sénégal dafay firndeel ne jeunesse bu Afrique ci boppam ñoo amatul complexe ci lenn Dumbuya ne yàkkamti naa lool jëflante ak Basiru Jomaay Fay ñu lëkkaloo ni ko réewi Afrique yi war a defee ngir sunu jàmmi askan Dumbuya yóbbante kàddu Basiru Jomaay Fay ne ko fal gi ñu la fal ci anam gu taaru ci boppu Sénégal dafay firndeel mat gi askan wu Sénégal mat lool ci wàllu démocratie ñor ci xomm société civile bi dëggal loola di seede ci yor yor bi élection yu leer yuy jaar yoon waaye it élection goo xam ne ci premier tour la yem maanaam ñoom itam seede nañu ne Basiru Jomaay Fay moom la askan élection présidentielle bi nu génn yoor yoor bi ne gannaaw ba nu ko fale ci élection booba Bassirou Diomaye Faye yëkkati na kàddoom muy fësal ay chantier ca booba lépp journal Amadou Ba nga koy ñaanal ndam ca la muy sumb ngir jàmmi askan wu Sénégal APR nag jàmm amu fa ndax Direct News nee APR moo maaray APR ci élection présidentielle bi nu génn journal bay fàttali ne ba ñu tànnee Amadou Ba ba tey ca la yenn kilifay parti ba tàmbali koo suuxloo moo taxit kàddu yamu njëkk a

loolaa gën a yàqal seen parti ba parti bi nga xam ne yéenekaay bi ne xeexoo ba ci boppam moo ko mujjee faat démocratie Sénégal bi ñu ñëpp jàppoon ne faatu na te mu dundaat moom la Abdoulaye li di lu ci yéenekaay yu bari bokk ca l'info démocratie booba siggiwaat it yéenekaay bi di la tribune ne ñu baree bari rafetlu nañ ko ci àddina rafetlu it ne nu falee Bassirou Diomaye Faye Emmanuel Macron njiital France te la bokk tribune ne gannaaw ba Diomaye Faye dalalee xelam moom njiital France félicité na ko ba nuppi wax ne yàkkamti na lool jëflanteeg moom Bassirou jaar jaaru Bassirou Diomaye Faye mooma nekk président Sénégal l'observateur di dikkaat dikkaat ci bi mu doonee gone la mu doon séenu waaye itam jaar-jaaram yéenekaay bi ne président Diomaye ab journalier la woon ca tool ya ca a tiis ci bu góor na mu xamanteeg soxnaam si mu takk benn weer lataa moo dem kaso it la magi dëkkam ba doon séenu ca moom ba di ko wax l'observateur bam noppee ca loola it ma ngay wax ci jéllu Amadou bi palub Basiru Diomaye Faye bi nag bokk na ci li ko sabab taxawaayu Ousmane Sonko ci gëti critique ca booba leb journal ñu baree ngay félicité Basiru Diomaye Faye bokk ca duudukaay Youssou luurit yéenekaay yu na Bassirou Diomaye Faye niki Amadou Mame Diop bi le jour ne félicité nañu Bassirou Diomaye Faye yéenekaay booba wëlbati ku gis ne Bassirou a négocier ndax retrouvaille di daje gi intercoalition yeewi wallu war a dajewaat ca assemblée nationale assemblée booba sax bés baa ngay laaj ndax dañu koy tasam déet boobale bi ne majorité képp moo ca mën a àtte laas moom mel ni ku naan élection présidentielle bi àtte na diggante liñ naan parti classique ak yeneen parti jëllug Benno Bokk Yaakaar Dakar bi réew mi taxawu Sénégal ak parti démocratique sénégalais mi ñu disqualifié laas ne loolay màndargaal njeextalu dundu parti classique président Sénégal bu bees bi nag kàddu yi mu yëkkati yéenekaay yi ne ñu baree bari rafetlu nanu ko kàddu yit yu dal xel la waaye ca Vox Populi Bakary Domingo Mané ak Mamadou Sy Albert di ay taskatu xibaar yu seen xel màcc ci neenu discours képp doyut ngir ñu natt njiitu réew Basirou Diomaye Faye Mamadou Sy Albert jomaay fay wax ko démb wone na ni moom liggéey la jiital discours booba itam dafay wone ne basiru jomaay fay mi xam na fu mu bëgg a jëm Aliou Cissé booba jamono ca këlëb yéenekaay bi yëgal ñu ñaari mbir yi sunu gaynde yi yóotu ci jongante xarito bi war a dox seen digganteeg benn tey bu 19 h jotee sunu làmb ca wawale waxtu ma ngay lim yi nga xam ne seen ndam ak seen tur ci làmb ji moom ak mel la xayam ndax gaaw a fay amoon dafa xoj ñaare lam mu fukki at ak juróom-benn ba mu jaaree fa faatu loola mel ni doyut mu jël néew ba lakk ca wetu jëf ju ñaaw jooja l'observateur a ngay fàttaliku taxawaay bu rafet bi soxna Zeynab Fall amoon ci Sénégal muy soxna su amoon diina waaye it ju amal njariñ lool askanam rawatina ci njàng mi ci loola la soxna Zeynab Fall nekkoon ba keroog muy làqu ci gëti l'observateur ca loola la ñuy jeexale tey ñaanal leen kenn dala jàmm dig daje ëllëg incha allah